Assalamualaikum patriote yi dama bëggoon def benn vidéo bu gàtt rek am lu ma leen leeral ci jàpp bi ñu jàpp président Ousmane Sonko pour wax leen ni rek ñi pareeguñ sax pour bàyyi président Ousmane Sonko xalaatuñu ko sax ñàkk bañ a xalaat ngeen gis euh, ñu chef euh, d'inculpation tegaat ko ci kon xam nga ni kooku parewul pour bàyyi Bassirou Diomaye te libé te ñi ñi libéré ñëpp ñu leen naan libéré nañu ñi ngi ñi ngi ñan ñoo ci cadre ñu c'est-à-dire ñii ñi ngi seen logique jéemaguñ sax bàyyi président ko Sonko xalaatuñu ko sax pour ñom Ousmane Sonko genn wax rek musiba la ci ñom ça veut dire perte nan élection yi ta man sama njort fi ba élection yi sax fi bañ nan ñom présence man Sonko du candidat conseil constitutionnel waxna na ba mu leer leen du candidat ñu bàyyi ko sax woru ci ñom da dañ nan bu genné mëna campagne sax kenn wala mëna taxaw sax di wax di live ak yoy te lool sax mëna na nu daaneel moo tax ñi ñii naa léegi ñu bàyyi ko di yàgg di yàgg aw ma man loolu jaarul sax sama parce que xalaatuma ko sax lenn rek a mën a tax ñu libéré président Ousmane ko mooy xeex te xeex bi du ay génn di sànni di laq matt ak yooyu xeex bi naa leen ko wax. parce que stade yi supporters yi vraiment ñi ngi def rôle bu am solo acteurs yi football aussi macha allah mais dimanche wala samedi naa def benn live jël sama temps live laay def jël sama temps naa wax ci sport bi. te sport bi ngeen dublu ma attentivement ñi far ci Macky Sall ak ñepp ño xamante ay sportif lañu dinañu dégg te buñu déggé nañu gëna a sonkoriser stade yi. nañu gëna xamné xam projet bi leen indil bi man son ko bind pour sport bi lool moy jëmal sport Sénégal dinañ wax ci yu bari na ci wax nagal ba jour bobu ba samedi wala dimanche inshallah ma bëggoon ñëw euh, tejé ci ben entre parenthèse bu ndaw nak moy ci Matar dama ko dégg. muy wax ci Akhenaton ba man je suis pas Akhenaton c'est maag moom dara xaw ma ko sax damay dégg nii rek après avancé dem sama yoon man doxuma ci yooyu bokkuñ sax yoon voilà man ku tudd lay lay la Muhammad rasulullah saa yi ngeen déggee sama wax vulgaire gën a tàng gën a metti rek kooku moom ku ko tudd moom je vais te traiter de tous les noms kenn du dugg ci 18 yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa bon ak ñoom xaadimu rasul bien sûr ñoo ñoom euh, c'est autre chose beneen niveau la ay El Hadj voilà dama dégg mais euh, Mame Matar Gueye wax ba khas Akhenaton mu ne kiñ ko tuddee yeufeur bu bon la won surtout Firawna ba wax foofu dama bëgg ñu waxtaan rek ñi am xam-xam aussi nitu diiné yi bu ma bu ñu mënee ginji comme sénégalais yi ñi dégglu jangal ñu aussi ñu xam parce que Akhenaton bi muy wax koku moy Firawna bi nga xamanteni période yonent yalla Yusuf la Akhenaton bobu muy wax koku ki Yusuf Youssouf ci boppam yonent yàlla Youssouf moo ko tuddee Akhenaton tuddee ko sax boppam ndax beneen tur la tuddoon moo ne woon mooy yàlla Égypte ak yëpp ba mu Youssouf kooku moo génnee yonent yàlla Youssouf après douze ans ñii naan dix ans ñi naa douze ans de prison Akhenaton boobu kooku moo génnee yonent yàlla Youssouf ci kaso bi ndax bañ injustice kooku ci ñu gëmoon yàlla la bokk gëm yàlla kenn la gëm Youssouf yonentam la Akhenaton boobu après koku ni day changer turam tudd woon Akhenaton ni legui na tuddé sam bopp adorateur du soleil ndax ki sak soleil bi koku momon nyep ñëpp mu tuddé bopam lolu adorateur du soleil mom ki ki ki défar soleil bi la gëm moy yalla gëmon na yalla firaw na mu jox pouvoir yalla Yusuf ba paré mu am yërmande trop justice rek la doon dox koku justice rek lu way def du yoon Yusuf lay jox niko atel yonent yalla yusuf mo doon def yusuf bi nga xamanteni papam yaqub daf ka joy bu gumba yusuf nga presque base égypte koo ko defar motax tax Akhenaton boobu du won yeufeur bu bon du won juif bu surtout firawna bu bon ci surtout firawna yi gëna bax la bokk kooku waaw ma Matar nak bu deke amna yenen nitu diine yu ñu mëna jangalat ci lool ñu jangal ñu mais koku mo yusuf moko tuddé tuddee Akhenaton pour moko tuddé tour tur te koku mo gëna yonent yalla yusuf ci kasso ba mën ko tëjee 10 ba 12 ans bon ci loolu laa bëggoon wax pas Akhenaton bi ñuy wax ni de man Akhenaton réel bi bi mu wax ni yëfaru bon laak yooyu man ci kooku laay wax bon ma bëggoon nag nitu diine yeeg yooyu bu ñu déggee vidéo bi ñu génn leeralal ñu aussi ñu xam bon mais après kooku après si la firawna yu bon yi après si la ñëw ba Moussa mat na presque trois siècles avant yonent yàlla Moussa di ñëw Isa ñëw Seydina Mohamed soog a ñëw parce que na Akhenaton boobu ba mu gaañoo après ay siècle siècle siècle la Moussa ñëw firaw na yu bon yooyu nag soxor yi ñu xam ñun presque ak diggante Moussa ak na bi ñuy wax période boobu la. 300 ans après presque 3 siècles après yonent yàlla Moussa ak Akhenaton boobu yonent yàlla Yusuf ak ak Akhenaton boobu bon tey loolu laa bëggoon wax di pré naan leen nag samedi dimanche naa def live boo xamante ni ci sport bi rek laay wax uniquement. dina jël temps mais nan la naa leen révéler lu bëri bëri bëri bëri lu ngeen di ngeen gën a sonoriser sonkoriser di ngeen gën a aalu sax di ngeen gën a mer seen xool dina gën a jeex incha allah ok sama gars yi wasalaam